ñu juróom-ñetti yi nga xam raxas yi ba pare cuuraay. macha allah dinañ jàng di doog a ñëwaat. ak ñuy toog ah, yu tedd yii <laughs> kii tamit. oustaz lañ ko jox ñu ne ko. parce que téeméeri xale boo leen yoree. mënul ñàkk ku si yaram wi tàng guddi nga daw yóbbu ko. moom moom nga jox oto bi. ñoom fii la ñuy moo fi dëkk. oustaz ñoo fi dëkk. est waaw. fii mooy dëkkuwaayu oustaz. oustaz waaw waaye mais mais mais sëñ As. ci lu gàtt ne xale yi nga ne nan lañuy def pour dugg ci daara ji. xale yi daal. jur yi mooy d'accord ne. Mhm. bëgg nañu jàng. Mhm. mu ut gaal. Mhm. ut kaamil. ut alluwa. ut matla. ut matla man amul fay tamit. kan moo eh, yalwaan na xanaa xale yi ñu toll nii kay téeméeri xale nga wax ne la ñuy jël téeméeri xale <laughs> amul yalwaan waaw sëñ aat lan moo la dugal ci nga jël téeméeri xale yor leen eh, amul yalwaane amul dara nga yor seen dund ak dëkk dëkkuwaay yu baax yi nga leen dëkkal ak tamit man bëgg ma wanee 4-4 bi ne moom nga jox oustaz bi nag boobu moom betti na ma loolu xam nga mooy li ma wax rek dama jàppoon ne uh-huh. Eh, alhamdulilah rabbil alamin tey ñun ki ñu jàngal alxuraan muy El Hadj Amadou Lo radiyallahu anhu dafa waxoon ne moom. boo ko joxee sa doom. bu amoon xaay daf lay fay yow mi ko jox doom fay doom ji. fay ndeyam fay baayam. jàngal ko ba mokkal mu bàyyi ko des ak yàlla. loolu loolu loolu rek. macha allah jërëjëf sëñ Mara. lii am na solo de lu ci sa ah, xalaat moom daal moom moom daal sëñ Fata lii moom moom moom tabaaraka dafa mel ni nitu daara yi war nañoo bëri Sénégal ndax lii ku jàng daara rek moo mën a am xalaat bu mel nii tabax yu ni toll man daal kuy jox oustaz 4-4 euh, naan euh, euh, ko doxee ko soxla moom ak ah, gis naa lu ah. que tamit macha allah ci alquran la jub yaru ci hmm. màgg ci dund ci ba mokkal ko di liggéey hmm. macha allah nekk ci yëfam mu xam ni alxuraan la war a delloowaat lii mu delloowaat ko. macha allah kon nag mbokk yi gis ngeen xale yaa ngi nii téeméeri xale la jël moom sëñ As ba noppi euh, yoral leen seen lekk ak seen naan moo tax ñiy jug naan euh, dañuy taxawu daara yi wala dañuy tëdd daara yi lu mel nii war nañ ko gis kii ki ko def ci daara la génnee ba tax mu mën a def lii xool leen néeg yu mel nii nga dëkkal ci ay nit yoo xam ne amul fay xolal xalé yaangi ni gis nga table yi sax pour xalé yi jang la te lepp moko financer motax dara lim jotta liggey ci senegal euh, amna solo wa ñi bokku ñi ak ñi sàcc milliardu rew mi yal na yàlla yàggal seen taxawaay allah kon tay bëgg baye ngi ma sha allah ñoo bëgg ñoo and kon tay no gisee li sante yalla bu baax alhamdullilah rabbil alamin lii moom ñëpp la war. Mm-hmm. waaye moom wane na doomu daara la. Mm-hmm. te Sénégal daara yi ñoo ko téye. ñoom comme comme si yow jamono bi Sénégal ay nit daara lañ. Mm-hmm. moo sëriñ bu wóor gi mel noonu te lii si la ñuy xëy na nga mokk alxuraan. waaw xam nga ku daan yalwaan di dundee. waaw dem ba màgg am wërsëg. am wërsëg te téeméeri xale ne dootu leen yalwaanati. waaw kooku kay mu ngi xeex euh, taxawaalu. ok moom moo gën a yor yi milliards dem denc ko ca euh, banque tubaab yooyu ñu di ko dundee nga dëkk di xas daara yi ku bëgg a def defal lii waaw allah macha allah macha du mos a am ndam. waaleykum salaam Oustaz Makhtar waa aar daara defe naa bu ñu gisee lii danañ kontaan ñu ngi ñaanal sëñ As yal na ko yàlla fay ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leen ci teewlu bi ngeen di teewlu RTV Dakar yow mi aboneegul aboneel ngeen commenté like suñuy vidéo